dig bor la ñàkk koo def itam wor la ñoo leen ko digoon yéen internet aloo Sénégal ne leen kaaw bi nga xamante ni moo am Kaffrine moo am ca Kaolack di borom ñaari tuur yi ñu sulli taal ko ñoo leen diggoon ni nañ topp histoire bi ba mu leer jër ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal suite lañ leen indil ci émission bi nga xamante ni moom lañ defoon fële ca Kaolack tey dañoo seet si kilifa goo xamante ni ca dëkk boobu la génne fa dëkk muy Serigne Cheikh Niass ñu naan ko dofuma xalifa bi ñu gën koo xamee ci le marabout de Ousmane Sonko histoire bi yor na ci secret yoo xamante ni faw mu génne ko tey denc na ko dencaat na ko waaye tey faw sénégalais xam naka la Cheikh moo mu génnee àdduna faw ñu xam naka la waajuram bu jigéen bi jaareek moom ba ni mu génnee àdduna ak ni histoire bi demee yépp tey dama naan duma ko wax suñu sama sëriñ sama sëriñ la waaye tey casquette boobu la ñuy teg ndax témoin lay doon moom suñu sëriñ bi di sëriñ Cheikh ñas dañ koy bàyyi mu nuyu mbokki internet di soppe xarit yi nga xam ne ñoo koy bàyyi xel fii ci Allô Sénégal ñu doog xuus ci liggéey bi cheikh bi bismillah alhamdulilah rabbil alamin Lamine ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateur yi safoo di seetaan Allô Sénégal di rafetlu seen liggéey ñu ngeen toppale sénégalais yëpp li jafe ci réew mi ak euh, tolluwaayu réew mi ak xat-xat yi nga xam ne xew na fële ca Kaolack euh, fa tabaarakallaahu euh, dañoo am ay mbir yuñ ci war a leeral yoo xam ne euh, amaana ba nga demee Kaolack am na loo ci dégg am ñun tamit luñ la ci leeralal waaye amaana sax konoon duñ ci wax mm-hmm. ngóor su ñuy wax Cheikh Fall way juróom bu jigéen daf ma oo vendredi su guddi xawma ma jour manifestation kii bi comme adresse F24 bi. waaw yaakaar naa vendredi la. waaw vendredi si guddi la ma woo. Mhm. ne ma salaamaaleykum ma ne ko maaleykum salaam fekk boobu maa ngi ci oto di retourné. Mhm. mu ne Seydou Cheikh ma ne ko waaw noonu dama la soxla ma ne ko dans 30 minutes nga awaat dugg sama kër dama nekk ci yoon. Mhm. bu ñu lu yàgg ci la ma oowaat. ne ma man de dama lay suivre lu bari waaye tey la yàlla dogal ma oo la. sa mbokkam Kaolack waa laa ma ne ko ma ne ko dëgg la bisimilah mu ma man de sama doom dafa am gént gum gént gént bi jaaxal ko lool. Mhm. gént bi nag euh, laaj naa ko ñaari nit ñu ne xamuñ lu muy firi waaye nag man tamit sama xel daj la ma ne naa laaj. ci la ma njëkk wax ne ma maa doon oo ci numéro privé boobu jëloo ci laa jël sama numéro doom bi xaw ma sama numéro lan numéro tigo bi moom ma ne xaaral ma wala ci ba xam dëgg jël. ma ne ko effectivement dama jël numéro privé. ma ne ko luy gént gi mu ne ma sama doom nag actuellement dafa feebar. mais dafa gént tëdd. moom Cheikh Fall boobu la doon wax. waaw euh, dafa tëdd gént euh, doom ji te yàpp xaj taxaw ci buntu néegam mais yàpp bi li ko ci jaaxal xaj bi dañ ko fees ba pare muy xëccoog moom yàpp xaj bi. mais maire bi nee na moom bi mu téye mooy côté tànk yi jëm diggali moom la téye moom maire bi Cheikh Fall téye diggante bopp bi jëm diggali di ko xëccoog moom. mais nee bi muy xëccoog moom li ko jaaxal dafa am doole ci gént gi. maire bu ñaane bi ma ko gañee ba war a jël yàpp bi pour sànni ko ci la matt maanaam côté bi nga xam ne téewee naa ko yàpp bi dakk ba daanaka dama daanu ma ne moo gént loolu moo ma wax loolu noonu doomam Cheikh Fall moo ko gént wax ko maire bi maire bi wax ma ko laaj ma loolu ma ne ko ah firi gént te sama Xalifa Ñas daan na wax ñaar daan na ne ku ragal yàlla dëgg yàlla xamal la wala ku ñeme yàlla dëgg mën a kàcc mm-hmm. ma ne ko man nag mënuma firi gént dagg may may ma am ko ma la laajal ma am sama benn xarit sama sëriñ sama soppe sama rakk sama ci jur bu nekk mbuur ma woo ko laaj ko gént gi mu xamal ma ne ma ah dama nekk ci joxe dara su da ngay bàyyi ba ci kanam nga waat ma ma ne ko d'accord ca kanam bi nekk di ma kar kar kar di ma woo mm, naa ko yuuxu sax na ma yàlla baal ci laa ko jëlee ne ko maire mu ne ma naa ma ne ko defal ndànk danaa la woo man duñ ma teg pressing mu ne ma d'accord maa ngi jégalu sama doom ma ne ko baax na ay 14 heures 15 heures bi sëñ Fata Euh, ay 14 heures 15 heures bi sëriñ bi bëgguma wax turam sax. voilà bi sëriñ bi euh, revenir woo ma téléphone. ne ma euh, dégguma di gént bi ma waxaat ko gént bi mu ne ma loolu de baaxut. Hmm? ma ne ko ah, mu ne ma waaw loolu baaxut de. ma ne ko loolu lu ciy pexe mu ne ma loolu deegu ñor xomb la. Hmm? <laughs> Hmm. ma ne ko ci ku góor ki wala ci ku jigéen ki. mu ne ma ku góor ki deem ñor na ku jigéen ki bu deful njot bakkan deem dana ñor. <laughs> après nag am na lu ma bàyyi ci gént gi parce que meeb nee ma bi muy xëccoog moom yàpp xaj bi euh, doom ji seex Fall dafa tarax laay woon ak benn sarbet bu rouge mm-hmm. mais lu ko jaaxal bi seex Fall matte yàpp ba mu dagg sarbet bi dafa tasaaroo mu wax ma loolu ma ne ko man sëñ bi ne ma loolu it maanaam suturu su xaabee lay doon mm-hmm. ma ne ko lu ci lu ciy pexe mu ne ma ah sëriñ de moom lu mënul faj amut waaye su ma doon yow daal bu ci dugg ndax am na ñoo xam ne buñ naree dem ku leen nara a wàllu da ciy bokkaale ma ne ko ah mu ne ma waaw baax na dégg naa la maire bi woowaat ma ma ne ko ah, rek waaye nangam ak nangam la rek mu yuxu si bi sama doom looy wax nii ma wax wax wax ba pare ne koy ñaan rek comme yaay mais boobu xamoo ni Cheikh Fall borom ñaari tur yi non non non boobu xamuma sax voilà genre vraiment mais bi ma toogee ba jot ay ay écho ba yow nga dem Kaolack jot ci ay écho aussi tamit jël paa bi ba paa bi wax tuur bi mhm. si la sama xel nag ne yar ci wala euh, ki ma owoon kan la caa ne ah ok loolu li si jublu rek li muy firndeel mooy mhm. euh, yaay dafa jege doom te am na mbir yoo xam ne su la dalee wala su lay bëgg dal gis nga doomu aadama foor na foor goo xam ne lu lépp lu lay bëgg dal mhm. yàlla dana la ko misaalal semaine boobu benn yoon wala ñaar yoon wala semaine bi yëpp pour maanaam pour firndeel la boo nekkoon ci jubadi ak ci bon nga tuub mhm. su fekkee xam nga benn ñaareel ba aussi tamit euh, Euh, ñuy métitlu li nga xam ne xew na ca armeelu lew na ñeseen yi ndax euh, lu yem ni lew na maytuñ kenn aujourd'hui ñuy tudd mbiru borom ñaari tur yi di ci toftal lew na ñeseen parce que yàlla dimbale nañu ñu am kilifa gu mat kilifa yàlla dimbale ñu ñu am xalifa bu laabiir mm. yàlla dimbale ñu ñu am xalifa bu sell bu set. yàlla dimbali ñu ñu am xalifa boo xam ne njëkk muy toog ci xalifa général jàkka ja këram rek lañ ko xamee woon. ni ay magam nekkee woon noonu rek ca la nekkee. mais nag population. buñ rejeté benn mbir na mbir mi bëggun ko. état du Sénégal ñoo war a taxaw ci mbir moom population bi bañ balaa ji yu mel nii di ci gën a bari. Mhm. parce que nag dégg naa ñu ne am na ay gone yuñ jàpp ca Kaolack te ñu ngi recherche ñeneen. te magum nañ ñeenti gone ci mbir jeex na te loolu dafay gën a taal fitna li tax muy gën a taal fitna mooy mud na indi révolutionnaire boo xam ne xaaruñ ko ci Kaolack xaaruñ ko ci Sénégal parce que dafa am lu jiitu xale yi di jëf-jëf ji buñ fàtte ne 2015 su ma juumul la góor jigéen di njëkk a def seen ndaje moom ñu defoon ci école may fàtte tur école ba def ko fa ngir lan euh, maanaam ne dañuy takkante ci seen biir kañ lañ ko def zuuru gàmm zuuru mawlidu rasulillahi lañ ko def fàtte xajul fi booba ñu am lu leen métti di révolutionnaire ñu gis ñenn ñu jàppale leen may leen passeport diplomate génn leen gaaw. ñenn ñi nekkoon ca mariage ba. waaw ñenn ñi ñu protéger leen ba maanaam ku ci nekk tëddoo sax lu ko jar léegi nag ñu bàyyi leen ñoo ñu tey ñoo juddule waat lii xew Kaolack maanaam tey lii xew Kaolack ku fa nekk rek ñooñu tey ñoo la ci dugal ñoo la ci poussé ñoo la indi fi nga xam ne neexul ñu benn d'abord deuxième. Wow. may alerte mboolem njiit boo xam ne yaa ngi biir Kaolack parce que population bu fa teewoon population Kaolack yëpp la. population Kaolack yëpp boobu nag nu ngeen mën a dellusee seen xel. nu ngeen mën a dellusee seen xel moo gën nu ngeen leen gën a mën a fitnaale parce que nit ki bu amee lu ko naqadi ba def donte lem def jaaduwut nga bëgg ko caa tegal leneen. dañuy indi fitna joo xam ne bu tàkkee Kaolack ñun duñ ci mën a artu te duñ ci mën a àtte avant loolu di ci juddu nag. am nañ sañ-sañu wax ci artu ci am nañ sañ-sañu atte ci beneen bi mooy li tax ma ne nañ ci génn turu lew nañu seen gis naa ay tiktokeur ak ay waxkat ñoo xam ne tekkiwul dara ñu ñëw taxaw di jël ay turu lew nañu seen di ko mbubbale maam di di ci toftal borom ñaari tur yi loolu na arrêté mayutuñ ko kenn li tax mayutuñ ko kenn mooy armeelu lew armeel yooya turu armeelu lew nañu seen la tudd mais nekkul lew nañu seen ñoo ko moomal seen bopp di fa suulal seen bopp hmm. armeel yooya képp ku dëkk kaw Kaolack ak foo mën a amee néew bu legal boo xam ne nii maanaam accepté nañ ko mën nga ko faa suul mboolee mi sant na nga leen fa suul bien vrai que ni nag 1911 maam El Hadj Abdoulaye Niass suñu maam di wayjur Maolana Cheikh Ibrahim ak maam Khalifa Niass radiyallahu anhu moo ko rëddoon. ba mu ko rëddee parti bu féetoo penku mu suul fa lenn ci njabootam fa la fa la fa lañ denc soxnaam yëpp. mam yaay maam xalif maam Aminata Thiam maam Assou Diank way juru Maolana Cheikh Ibrahim boo taxaw ci armée mooy borom tabax bi ngay gis noonu mu kawe ñu collecteur ko maam xalifa am na ay doomam yu fa nekk am na doomu Cheikh Amar Fouti Tall yu fa nekk am na ay sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi yu fa nekk am na ay waliwu yu fa nekk armée yooya du ma tudd tur ngir xotti orma ma tëjee ci parenthèse boobu am na koo xam ne jigéen la kenn la ci doomu xalifa ñas yi ba mu gaañoog léegi lu mu gàtt gàtt war naa mat 6 ans 5 bu yàggut am na ku ñu doon denc ci côté am bañ gasee ba atta parfum bi nga xam ne sax bañ koy denc parfum nañ ko ko mi ngi mi ngi gilli ci biir bàmmeel bi ba tey perkaal bi mi ngi weex tàll amut lenn lu ci dëñ kon ñooñu ay doomi waliwu ñoo fa tëdd ak i doomi borom yi barke mm-hmm. ak doomi maanaam ñu ñi nga xam ne seen maam jaatal nañ lislaam mais nga baal ma nee nañ bañ koy suul ci almeria sapeur pompier ñi ne ambulance moo ko fa wàcce ay guddi am na ñenn ci autorité wala sax ñu baal ma ci kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo ci kilifa aada yi lañ mën a wax ñi nekk Kaolack ñoom ñoo nangu loolu tey am Kaolack. xam nga suul ko xam nga ñun amuñ lu ñu nangu ak lu ñuy bañ parce que dafa am fu néew bi jaar dafa dem dëkk bu mel ni Touba ñu rejeté ko mu dem ci yeneen armée yi ñu rejeté leen. nu ñu respecté ba dem ci yeneen armeel yi ba leeral na ñun dañoo am néew war ko fee suul mm-hmm. noonu lañ waroon a alerter kilifa gi bu dee bëgg nañ ñu suul ko fa ci teeg bakkan wala bëggun ko dañoo niñ demee Touba alerte waa Touba ne leen dañoo am néew kat bëgg ko fa denc waa Touba ne leen néew bi yëg nañ ne nangam la rejeté leen lu tax ñu yàpp gu doy yàpp gu doy ni lew nañu seen ñëw amuñ benn autorisation kan ni war nga fee denc nga ñëw denc fii ba li ci xew xew ci beneen benn ñaaral ba paa bi nga jël wax na ne on a sous préfet xaw mu préfet yëgal ko li xew li xew foofa su fekkoon ne man ci sama gis-gis loola amoon na sous préfet bi maanaam sama gis-gis mooy definam moo doon wax paa na ko jox ma numéro maire bi mu jox ko mu oo ko ne ko yëg naa sa métit waaye xëy na jot ci woo ci man li ma bëgg mooy néew bi da ngeen ko indi hôpital ñu dajee bërëb nangam ñu jox ko ko mu ñëbbu ko ci fa ñuy galaasee néew yi nga xam du yàqu ñu waajal ko defar ko bàyyi ba nga xam ne nii mbokk yi dal nañ ñu proposé mbokk yi benn nañ ko suul ci teegu bakkan wa ilaa nañ ko yóbbu ba ca àll ba ñu denc ko fa ndax man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi xaamili abid loolu alxuraan wax lu waaye jëf sa bopp bu ñu la yóbbu woon ba àll kiro koro ba nga nar a texe da ngay texe la yóbbu woon ba àll kiro koro ba nga nar a texe di doo kenn mënta musa ko ne ba doo ba texe kon loolu dafay firndeel ne maanaam am na pàcc buñ ci am am beneen pàcc boo xam ne ay parents ay mbokkam ñoo ko seetaan te lu ko dal ñoo ko ko yóbbee lu ko dal ci sutura gu xaaweeku lu ko dal ci way jur wu àdduna yàlla na yàlla yërëm way juram woo génn àdduna ci barkeb rasulillahi ndax yàlla moo yor njëggal euh, maanaam tey ñoom ñoo ko yóbbee parce que tey mënoo imagine sa doom ci lii la nekkoon dem nga Touba ñu rejeté ko nga dem yeneen kër yi ñu rejeté ko nga am yab gu doy nañ ko yóbbu lew na ñeseen première a ngi noonu bi nga koy indi jullit lañ ca xam mooy dañ koy sang waajal ko wat ko fépp foo xam ne nii am na bën bën ca moom ñu sol ci ay coton mhm. takk tànk yi takk loxo yi maanaam bootaalee ko perkaal yooyu yëpp gis nañu amu ci maanaam waajaluñ ko comme ni ñuy waajee néewu jullit déedéet yeneen nga image bi ñu koy bi ñu koy watat jëmm ji nga doon gis gisoo sax perkaal bi karaw gi yaa ngi koy gis bi ngeen koy watat bi ñu koy watat mm. extra extra kon loolu dafay tegtale ne maanaam am na lu ci xew beneen biit mooy gis nga armeel dafa sensible am na ñoo xam ne duñ bokkante bàmmeel mm. waaw loolu lu may firnde rek di ko wax am na ñoo xam ne. moom it ci kaw bàmmeelu jàmbur lañ wàqi rek suul ko. image yi gis nañ ko ñu. ndax ne am na ñoo xam ne kenn du leen bokkaaleeg bakka ba bàmmeel parce que am na nit ñu set ñoo xam ne nekk ay wëliw yoo xam ne bu guddi jotee yàlla daf leen di may possibilité ñu def tajaliyaat ci geneen jëmm. wala def tajaliyaat ci jëmm joo ñeme pour génn pour servir seen njaboot ku ci nekk ci ndëng te ñu jël ko jubbanti ko. kon tey kooku boo jëlee maanaam bàmmeelam sëf fa loo xam ne nii neexu ko. kooku dafay maanaam dafay reflété wu ci xolu ndaw ñi ñuy def sax loo xam ne ni bëgguñ ko. loolu daf ciy am kon il faut faire attention ca ni bu ñu dencati ñu xamut fañ denc diw kii diw mi wala diw maa nañuy laaj. Mm-hmm. loolu mën na cee nekk mais lu ci mun te xew ñun loolu taxut ñoo jug li ñu tax a jug rek mooy wax yi bari na Lamine. waaw nañ ci coow june. Mm-hmm. war nañ koo lakk waruñ koo lakk julit nangam ndax liñ liñ lew na def dagan na wala daganut. Uh-huh. danaa ci tontu boobu ci deux minutes. waaw ma njëkkee ci l'islam d'abord li xale yi def du prétexte ci l'islam parce que amul benn xale bu ngeen talal micro ne ko lu ci lislaam wax borom xam-xam yi da ngeen dem naan ko lu ci lislaam wax. mais ci pays laïque lañ nekk. newuñ ci pays boo xam ne dafay doxal l'islam il faut muy leer parce que bu ñu newoon pays buy doxal l'islam buy attewoo charia ñoom ñooñu njëkk ñuy ñëw ci bàmmeel ba ñu war leen a suul dañ leen war a rey. ñoom ñi indi néew. non non non non ñi nga xam ki nga xam ne maanaam ñaari tur yi la dañ ko war a rey parce que preuve bi gën a leer mooy alxuraan ku weddi alxuraan weddi nga ma yàlla moon na nitu yontu yàlla luut yi ñëw nañ di seen teg seen biir ba yàlla yebal ay malaayika transformé seen i seen i jëmm def jëmmi nit ñu ñëw gis leen naan ñii moom rafet nañ tey jàpp nañ kaañ tey nangam ba yonent bu sell boobu ne leen dimbal leen ma su ngeen bëggee ma may leen samay doom yu jigéen ngeen sey ñoom ngeen bañ maa toroxal sama gan yi tedd yi ñu ne ko liñ bëgg la ñuy def gan yi xamal yonent boobee ne ko ñun ay malaayka lañ bàyyi leen ñu ñëw yàlla ñu wut dañ leen nar a alal tey jëlal sa njaboot ña la tëggam ak saw xeet ña la tëggam ngeen génn centimètre dëkk bi ngeen toxalu ñun ñu walbati suuf si waa daw tey yàlla mi nga xam ne taxaw ne wala xadd karam naa bani aadama wa amal naaw fil bari wal baxri lépp lu ma bi lépp lu ma lu ma lu ma bind doomu aadama laa ci gën a bëgg yàlla moomee jël doomu aadama tey maanaam mën a jël suuf ëlbati ko jël ay xeer yu am safara sànni leen ko bañ xëm ba lakk ba jeex takk waa waa nag tey ndax yàlla moomee def loole du def ñoo misaalal na leen nañu bu lii amee mënuñ mënu leen ko muñ def leen nii ah kay benn ñaareel ba it mooy bu leen fàtte ne Seydina Aboubacar alayhi salaam oo woon na saxaaba yi ba fi borom ñaari tur commencé génne foofee mu ne dama leen laaj seen xalaat yéen yéen ñeent yéen ñett ñi yow Omar Aliin ak Ousmane luy seen xalaat ci mbir mii di góor jigéen. ndax mi ñuy bëgg jaaxal. Omar ne góor jigéen di damaa gis ne ñun comme mënuñoo joti asamaan. te yàlla ba mu leen alak mooy da leen a jël da leen yóbbu ba ca maanaam da dafa ëlbati suuf si yóbbu leen ba ñuy dégg seen sab yi. mu ndëpp leen ba pare jël ay xeer yoo xam ne nii ay saf safara lañ ko lañ ko xambee di leen ko sànni. te képp koo xam ne rëccoon nga avant mugal moom ni yow demoon beneen dëkk identifié nañ la ba xam ne fii nga jël xeer bi sànni la mm. xeeru safara yooyee. lii mooy suñu gis man Ousmane ak euh, ki nga xam ne mooy Omar mooy bu buñ leen gisatee daal nañ leen yóbbu ba nga xam ne satadoo bi gën a mag bu nekk fii wala xeer bi gën a mag ñu bamax leen ñu daanu dee Seydina Aliou ne déedéet man gisuma lool ndax bu boobaa danañ calculer ne danañ leen suul wala duñu suul ñu ñu sonal xam nga lu ma gis ñu ne waaw mooy damaa gis ne bu buñ leen gisee daal nañ leen sotti essence wala lépp luy boy ñu sotti leen ko taal leen ñu jeex tàkk mu jeex ba xam duñ am duñ ba nga xam ne xale bi nar a yàqu ci jëm ci lii ci société bi bu ko gisee dana ragal taal googa ba du ko def Seydina Aboubacar wax naa Omar ne ko man li nga wax ci laa ànd lii la ko wax te buñ fàtte ne nag borom xam-xam yi laay wax képp ko koy laaj bul fàtte ne Seydina Aliin moom la yonent bi taxawoon ne ana maridatun ilmin wa aliyun baabuha man maay néegu xam-xam wala këru xam-xam wala dëkku xam-xam waaye Seydina Ali nag mooy buntu ba ku jaar ci moom doo egg si man Seydina Ali nag bu waxee loolu ak ak Seydina Aboubacar Sadiq nga xam ne nee na yonentu yàlla salaa salaam lu mu wax lu mu commencé wax bu heggagut man Omar man man man Aboubacar gëm naa ko bañ tuddee ko as Sidiq nga kon ñaar ñooñu duñ fi teg loo xam ne maanaam kenn da koy teggi ci ñun wala kenn da koy teggi ci suñu maam ñi wala kenn da koy teg suñ bàyyi. mais damay des des ci mbir mi Kaolack moom borom ñaari tur la dund na foofu noonu waa Kaolack nangaan waa Daaru Salaam nangaan yi gëm gis ni moom borom ñaari tur yi la ak nam fa doon def jigéen ñam fa doon dina doon indi këram ak lépp ñu gis ko teg ci seen bët mais génnewuñ ko dëkk bàyyi bu mu génn àdduna ñu koy taal moom est-ce que loolu it am na sens. waa xam nga ñoom état de leen a protéger ci lu bari ci bu ñuy dund protéger leen maanaam ba tey koo ciy xulóog wala nga ciy wax moom sax li mu lay njëkk wax mooy bu ma demee police wala wala gendarmerie doo ñibbisi benn ñaareel ba aussi tamit ci péew droit lañ nekk péew boo xam ne doo fajal sa bopp boo gisee lu la naqadi am na lu la état maanaam gardeel yow mi am lu la naqadi am na lu la état gardeel yow mi am lu la neex mais nag kenn ku ci nekk la nga mënoon mooy bàyyi yàlla fajalal boppam au lieu que yow ngay fajal sa bopp. mais kilifa yi ñu def ay démarches kilifa yi su ma ko waxee mooy chef de quartier yeeg euh, ñi nga xamante ni bor ay parents lañ ay délégué yeeg def ci ay démarches bañ yëg nit ñi ñi ngi doon jëf ay jéego ngir génne ko ci seen société génne ko xam ni bokkul ci ñoom. waaw def ay démarches kay wu tey ci misaal mu gàtt rek. Mm-hmm. maanaam taxawaalukat yi nga xam ne ñu ngi taxawaalu état bi moo leen di jox carte. waaw di leen protéger. waaw <laughs> buñ tey ak yow an sa carte nga ne nangam. Mm-hmm. te ña koy yooyu ay jullit lañ. ay doomi jullit lañ loolu kese mooy misaal mu gàtt mi mooy tey nit ki am na lu mu man a fajal boppam ci sañ-sañam am na lu mu mënta fajal boppam ci sañ-sañam booy dund yaa moom sa bopp yaa moom sa kër yaa moom sa doxalin doxalal moo bee génnee àdduna nag loolu nag mënatoo sa mënatoo sa bopp mënatoo dem nit ñi nag ñooy xool seen digg ak seen borom ñu roxal ko loolu moo ko dal moom hmm? mais damay dellu siwaat ci feebar bi nga xamante ni Cheikh Fall feebar na ko laataa muy génn àdduna suñu borom may na la ngay ñaankatu yàlla yaay ji ba la woowee yaakaar la amoon ci yow ngir ni doomam ji dina wér rek dina jug ca fa mu ne est-ce que wax na la ban feebar moo ko daloo nag naka la ko feebar bi dalee ak ni mu gén ni ni ni mu yaakaare ni noonu la doom ji ñàkkee bakkan waaw xam naa de euh, waxuma feebar bi exactement mais njortu naa ne cancer la. Hmm? waa njort nag laa ci am wala wax lam parce que bi ma waxee dafa gént wax ma pare man laaj naa ko foofu àgguma ko sax parce que sutura la. am na yu ma ko laaj. lu ko dal lu ko nang mu am signe ma wax. boobu laa xam ne aussi tamit boobu laa njortu ne maanaam loolu la feebar boobu la. cancer waaw dama ko njortu nag parce que yaay ji waxuma ko exactement. li ma fi nettali nii nag nii la ma ko waxee parce que nag euh, lu waay di wax na xam parce que da ngay da ngay layoog sa sa ndeyjoor bi. Mm. mais daal njortu nga ni cancer la mais waxu la ci exactement euh, nan naka la euh, naka la feebar bi demee ci moom naka la manifesté ak situation bi mu demee ba xam lu graaw la woon wala lu ko sono la woon ba ba teree ko dox ay soxlaam. waaw mooy li ma la expliqué léegi ma vraiment jotuñu àgg foofu yi mag moom fi ñu jot a rek mooy li ma la wax nii moom moom moom lañ jot a àgg euh, ci mel noonu ñu ñu ñu kii ko ñu ñu ñu bëlëf la wax ji. ma ne ko may ma ba nangam la ma ko ca wax wax naa ko ca ba ma ko ko ca waxee jeex na. Mhm. waaye kilifa yi Kaolack nangaan yi nga bokk ci kilifa yi nekk ci ñi fa am baat ñi nga xamante ni dañ leen di topp sopp leen bàyyi leen xel ci dëkk bi tey boo génnee wax dañuy xam ni kat sëtuk sëriñ bi moo wax. taxawaayu kilifa yi ci loolu naqarlu ko wala taxawaayu sëriñ ci loolu dem na sax ba am ñenn ñoo xamante ni ñu tekkiwul dara ci réew mi commencé génne sëriñ yi ñoo leen joxoon ndigal ci xale nañ sulli kooku. waa mooy li may wax toujours rek ne mbandam wax bu tojee ku ne da ngay wax ku xam lew nañu seen. xam na ñun duñ daw suñu duñ daw di assumer suñu responsabilité. ba mu méttee gënoon naa métti li Covid 19 ñëw fi ñu tëj jumaay ak jàkk yi xalifa général bu lew nañu seen moo jël initiative am wax li mu bëgg ci kanamu état dévier ko ubbi jumaa yi maanaam libéré mbooleem jullit ñu dem julli ci waa ku def loola devant devant biir police bu Kaolack yaakaar naa boo yebaloon ay nit assumer ses responsabilités yooyu maanaam wax ko tey tey lu yomb lay doon yaakaar naa waxal nga ko sa bopp ñun yëguñ woon sax ne néew am na jëlee nañ ko fii yóbbu nañ ko Touba histoire yooyu yëguñ ko woon ñun mm-hmm. maa ngi seddaloo yàlla bi ma bind bindi la ne man sulli nañ néew bi ba taal ko lu yàgg sama téléphone soog di sonné fekk ma doon oo sama soxna jotuma ko ci gannaaw gi ci la ma doon rappelé. ne ma dam yaa nga doon oo de ma ne ko waaw mu ne man sama kër ak armée ñoo jàkkaarloo. man sama kër ak armée la ñoo jàkkaarloo presque. mu ne ma euh, dafa am lu fi lan la ci la ma waxee histoire bi. ma ah, ne ma waaw ma ne ko mbaa génnu leen. mu ne ma ah ñun de ñu ci buntu kër gi man ne ko dugg leen ngeen tëj buntu bi. Mm-hmm. mu ne ma ah doo ñu ma ñu seetaan ma ne ko seetaan nettalikat moo koy def dugg leen ngeen tëj buntu bi bu ma waxaat coupé sama téléphone ci laa owaatee keneen ki ne ko tëj ngeen buntu kër gi mu ne ma waaw ma ne ko dem leen ci bi ngeen seetaan télé ngeen génn ci seen yooyu parce que boo weexee dunk da ngay moytoo gàkk voilà loolu kasa loolu kasa lañ ci jublu woon mais pas ay ragal pas nangam ba ci la sit mooy yàpp ñu weesuwul jaarale néew fii ñu wax la yëpp doyut mm-hmm. nga taxaw ci di ngëwte ngëwte ci tiktok yeeg ci nekk naan lew nañu seen nangam nangam nangam mm-hmm. loolu aujourd'hui maytuñ ko kenn man nañ koo faj ci zahir man ko faj ci baatin waaw mayatuñ ko kenn kuy taxaw di defiyee kilifa gi wala di defiyee suñu xalifa bi wala di defiyee kilifa yi nga xam ni maanaam jël nañ seen responsabilité yu mat sëkk parce que nag euh, Lamine dafa neexul ci xol tey nga ñëw tuuba xalifa général de Mouride maanaam signé ak waa ànd sàmm jikko yi na d'accorduñ ci homosexualité nga dem Tiwaawoon xalifa général Tiwaawoon signé ko nga ñëw lew nañu seen gii may wax xalifa général lew nañu seen signé ne d'accorduñ ci nga dem Medina nga dem Njaasaan nga dem Canaba nga dem Laayeen nga dem Xaadiriya nga dem mboolem fu xalifa yi nekk ñu signé ne d'accorduñ ci ñu ànd campagne ko wax ko askan booba nangu dem assemblée nationale am ñenn ñu bokk ci yenn parti taraay yiir askanu Sénégal taxaw ne ñoom duñ criminaliser homosexuel mooy góor jigéen te tey ñu maanaam euh, ñu criminalisé maanaam li nga xam ne mooy viol. Mm-hmm. te viol lu métti metti métti métti moo gën a neex a wax moo gën a neex a xool moo gën a neex nangam euh, maanaam homosexualité parce que viol njaaloo la rek boo amagul jëkk boo amagul jëkkër wala jabar téeméer yar boo ko amee dugal la ci pax sotti lay xeer. lii kese moom moo nekk maanaam euh, atte bi. mais léegi da wax lu am solo muy ànd sàmm jikko yi keroog am na kenn ku jug kuñ naan imam Lamine Sall attaqué ànd sàmm jikko yi ndax lan kenn déggu leen ñu wax ci wàllu homosexualité bi jamono ji li li ko waral nag mooy dafa mel ni Macky Sall lañ doon xeex te seen combat mi ngi mel ni aboutir nañ euh, ci seen fin combat. waa ànd sàmm jikko yi lan mooy seen taxawaay jamono ji wala oustaz Lamine Lamine Sall li mu doon wax dëgg la. waa am waa ànd sàmm jikko yi peut-être li mu wax nekk dëgg mais peut-être man tamit leen ci benn région. ñun waa ànd sàmm waaw raison bi ma leen di nangulee mooy euh, nit buy wax te ña war a dogal la muy wax ji mu ñoo dégg la muy wax ña war a xeex loola it toog fi ñu toog ji muñ koo xeex di ay kilifa ci réew mi ami taalibe ami jarbaat ami doom ñu leen sukkal di leen raamal ñu waroon a njëkk a wax te waxun kon ñoom def nañ seen devoir lépp lu ñu waroon a def ci mbir mi am na foo xam ne bu fa yeggee kilifa yi ñoo koy mottali kilifa yi koy mottali nag mooy kilifa diina yi kilifa aada yi bi kilifa cosaan ñu dajaloo def benn say def benn bloc oote point de presse xamal état du Sénégal na ko lii diraam te ñeg ba la jëm mhm. parce que lii am na lum am am na première pa bu askan bi njëkk a teg parce que man bu ma déggee ne xale yi ñu ngi leen commencé jàpp di leen commencé tëj sax man tey dafa ma jàpp dama ne tey man li ma wax nag foofu nag fa laay dama ne léegi nag yëf yi mi ngi bëgg a am lum nuru parce que protégé bi nit ñuy wax am na lu muy bëgg a nuru parce que askanu lëmb buñ jugee def benn délit ñoom askan ba yëpp ñu dug def ko assumé ne ñun askan bi yëpp la nga seppite ñoo la neex jël la tëj kooku wax dëgg na yàlla ñun man de xawma ko woon bu njëkk mbooloo lépp luñ def askan kii ko assumé seen responsable ñun ñoo ko ñun askan bi nañ xool lu naqari askan bi ñu saafara ko ba pare soog di leen tax ngeen def lii nii benn ñaareel ba mooy bu fekkee état Sénégal dañoo pare pour daganal homosexualité ci réew mi mm. nañ assumé seeni responsabilité wax ak askan bi ne leen pare nañ pour daganal ko waaye nag bu boobaay bu askan bi assumer seen responsabilité seen kaw ñoom it nañu nañu riposte bu ñu daw buñ ñu daw seen benn responsabilité benn benn point deuxième point mooy man li ma bëgg bu ah, bu état bi pare pour maanaam daganal ko na pare pour utal leen seen cimetière bopp ah. bien sûr loolu moom bu paree pour daganal ko na pare pour utal leen seen cimetière bopp mhm. ñu bind fa cimetière de homosexualité moo xam jigéen ak jigéen la moo xam góor ak góor la bu mu ci doon lislaam bëgg ko bu jeex na léegi yooyu bu fekkee def nañ ko nag xanaa nit ki nag dana rusa nekk dara di ko fësal di xalaat ëllëg bu dee ñu ñu ñu gàddu ko ne homosexualité la wala nangam la woon ñu ngi koy suuli ca baam ci seen armeel ya lii bu ko extase bu ma jox état la rek buñ ko defoon tey tey tey tey tey tey tey tey léegi tey mu jeex fi ñu nit détail état du Sénégal suñ bëggee rek la yëf yi nañ ut àll bu yaatu defar ko ne képp koo xam ne homosexualité nga nëbbatoo ko ñëwal ñu defal la suñ say carte waaye boo dee kenn du la dul suul ci armeelu chrétien kenn du la suul ci armeelu jullit da am seen armeelu bopp parce que chrétiens yi reconnaître wuñ leen jullit yi reconnaître wuñ leen lii kese la buñ ko defee jàmm na ñooy bu fekkee mënuñoo def lii nag nañ wax ak askan bi beneen bi may wax mooy Amadou Ba ñu ngi xaar sa maanaam sa sa sa participation ci mbiru homosexualité bi Ousmane ko mi ngeen tëj kat li leader Sénégal yi bëri bëri bëri moom kase moo assumé responsabilité dem ca dajam ànd sàmm jukki mu fi amoon mhm. taxaw ne moom bu jéegoon samedi dimanche mu criminalisé ko ci kaw condition wu kane mu leer nañu ne nit kii di dox homosexualité la yaroo wut ci di wax damm ay loxo yaroo wut ci yaayam yar ko yar boo xam ne yaruñu jigéen la wala mu maye ko ñu yar ko yar boo xam ne jigéen la kooku mën naa doon mën na koo doon ci wax ak ci ki may du ko doon ci jëf kooku attewuñ ko dara dañ koy fexee yaraat fexe ko tàggataat ba cëri mi yi waat bu fekkee nag koo xam ne xam nañ ne kii homosexualité lay dund maanaam pire et dire te nëbbu ko làqu ko kooku nag bu boobaa la ca war mi def ko ca moom la Ousmane Sonko wax léegi Amadou Ba maa ngi lay lancer défi di lancer défi mboolem kuy laaj réew mi askan bi nañ am fulla am fayda ñoom ñëw nañ ci élection député nax ñu ca élection maire yi lañ njëkk lañ njëkk ñëw nax ñu ca ñëw ci député yi nax ñu bañ demee ba assemblée nationale ñenn ñi beddeeku dem ànd ak état taxaw di xeexaat askan bi mooy xeex Sonko rek mooy xeex askan bi ñooñu tey maanaam amuñ benn maanaam agenda bu ñuy indi askan bi benn agenda rek lañ am mooy daw di weddi ci askan bi mooy fu ñu toog toog di weddi naan maanaam complot wu ko bokkuma ci ak nangam ñoom loolu kese jamono ji moo nekk seen campagne moo tax ma yërëm leen mm-hmm. ndax mu nit bu defee lu ko askanam jéppee day faroo di weddi di weddi di weddi ba taam jeex mm-hmm. ñoom loolu moo leen dal mais Ousmane Sonko ak parti Pastef fañ nekkoon ci wàllu ñaar borom ñaar turi ba tey fa lañ nekk tey lañ ko ñemee wax tey lañ ko gën a ñemee dëggal ndax lu diine l'islam nanguwul nanguwun ko lu diine chrétien yi rafetluwul nanguwul ko nanguwun ko li nga xam ne maanaam maanaam sans diine sans dara sax juddu bu rëy rek wala juddu bu ndaw ak juddu bu ndaw amut juddu yëpp rëy nit ku nekk fa fa nga juddoo la sa morom juddoo nañ la ngénte lañ ko ngénte ñu tudd la tudd ko bu dee góor nga góor ngay doon bu dee jigéen nga jigéen nga war a doon kon nañ respecté sénégalais yi Amadou Ba ñu lay xaar nga tontu ci lii nga xam ne mooy borom ñaari tur yi lan nga ci wax lan mooy ci sa programme ci 2024 boo jëlee tur yi boo jëlee réew mi xam naa ne doo ko jël nag waaye nag dama lay wax dama lay arté pour wa pour wan sénégalais yi wax sénégalais ne képp ku pare pour daganal homosexualité bu ñu la wateel sëñ bi lan ngay tàggatoo mooy di leen sant di leen gërëm di jéggalu ci xat-xat yi ak seen déplacement di wax ne la kew Kaolack ñu ngi koy ñaawlu tax ñu koy ñaawlu mooy en tant que nit waxuma julli sax mais en tant que rek mhm. buñ sullee nit wala ab xaj wala ab xar sax ñëw di ko taal sa kanam sa xolu doomu aadama war naa yëngu wax dëgg na yàlla bi ma gisee vidéo yi sama yaram daw na vraiment sans caaxaan bi ma ko gisee sama yaram daw na sama ronqañ xaw na toq tuuti parce que en fait nit laa doomu adama la di wax it ne parents yi nañ jël seen responsabilité seen njaboot ji te bañ a jiital alalu àdduna mm-hmm. te bañ a jiital bëgg-bëggi àdduna njaboot da nga ci am responsabilité bu mat sëkk boo koy yaree ndax métti na nga génn àdduna même pas quelque temps ñu dégg li xew wala même pas quelques jours sa yaay topp ca. nga ba rakk yu jigéen wala rakk bu jigéen wala ay famille tâche boobee nga bàyyi say famille du dañ ba ilaa yawmi diin loolu nit ku nekk war nga koo sàmm sa diggante ak. parce que mbokk dafa fort nañ bàyyi loolu xel. ñi ngi sant di gërëm. di masawu coono aussi tamit mboolem famille Kaolack yëpp. parce que. Kaolack homosexualité daf ñoo yàpp Kaolack lu mel nii daf ñu caa yàpp ñi wax autorité yëpp ne leen nag nañ ci jël seen responsabilité neexul ñu bëgguñ ko bëgguñ suñu njaboot gi dund ko ndax nag maanaam détournement de mineur xaw ma mooy dossier Adji Sarr ñàkk fayda bi lañ ah détermination de mineur ñoom ñooñu ñoo ko dàq parce que dañuy fekk nit koo xam ne xale la xamul lu xew ñu jël ko détourné ko indi ko ci seen seen bopp sa seen waxin ca seen solin ca seen doxin te neexut nit ñi te loolu nag am na lu ci lu waa wax comme lu ci lu waa wax nag nañ ko appliqué ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla nañu yàlla taxawu yàlla xaar ñu yàlla na fa coow lu mel nii gëj Kaolack parce que Kaolack dëkku diine la dëkku lislaam la dëkku baatin la euh, dëkk la boo xam ne it ay waliw ak i xutbu tëdd nañ fa dëkk fa kon lu mel noone waru faa waru faa am te ngi bégal ne waaw Sénégal musiba gu rëy mënoon na fee wàcc semaine bii muy suuf su yëngatu. muy la xew Maroc wallaahi azim gént naa ko ñaar yoon ne waroon naa wàcc waroon naa wàcc semaine bi Sénégal. am na ñu ma ko waxit waaye xëy na amaana maanaam naqarlu gi ñu naqarlu mbiram góor jigéen gii neex na yàlla ba yàlla détourné waale ko te ñu ngi yaan loolu bu yàlla bu mu fi am. yàlla bu mu fi am yàlla bu mu fi am yàlla nañu yàlla ruusee jëmi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam yàlla nañu yàlla ruusee jëmi mag ñu baax ñëpp. ci barke alxuraan wa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki internet Allô Sénégal jaajëfal leen la ñuy def waaye tamit jaajëfal ko moom du ñu wax suñu xarit nañ naan suñu sëriñ suñu sëriñ la doon na ko mat na place bu baax a baax moom sëriñ Cheikh Niass di ku yàlla may di nitu yàlla waaye tamit di ku mën a waxtaan ak nit ki di ku mën a génniwaat nit ki ci li nga ne waaye tamit di ku mën di ku am njariñal nit loolu nag suñu diggante la ak moom luñ koy seedeel tey nag ñun ñoo ko seet si ne faw rek mu génn waxtaan ak askan wi ndax doomu kawlak la kilifa la ba pare itam am na lu mu ci xam lu baree baree bari moo tax ñu ni faw ñu seet ko rek ngir suite bi waaye nag na ngeen ñuy topp ndax dañuy delluwaat Kaolack yeggale histoire bi ni mu demee ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg ci seen beneen émission jërë ngeen